fi ci Touba nga xamanteni ni euh, Touba al Mahrousa ci touru euh, euh, présidente conseil économique social et environnemental di soxna Aminata Touré ci ndigalal kilifaam di président de la république son excellence monsieur Macky Sall and ak ñu mu doy lool lool ñoo xamante ni moom ñoom du tey démb lañu woon euh, dana doy sëkk sëñ Ahmed Dieng mii nga xamante ni mooy soxna Aminata soxna Aminata ay moom ndax moom moom du ñu tey démb lañu woon yàlla dogal muy conseil spécial bu soxna Aminata jóge ci moom tey ci suba ñëw Cees fekk ñu fa. ñoom ñëpp ñu yëkkati seen kàddu dénk ma soxna Aminata nag nee na ñëwam bii ñëw bii ñu ñëw bii mooy sorte bu jëkk ci bii mu nekkee lii lii ko yàlla def taawee ko ci président de la république ñu ngi ànd ak kilifa yoo xam te ne lislaam bi ndax dafa ne ñu bu ñu fa bàyyi lislaam bi ndax bii mooy sorte bu jëkk dana doy sëkk ñu ngi ànd ak Serigne Moustapha Aidara mi ku ni Moustapha Aidara xel yëpp dem ci rasulullah alayhi salaatu wasalaam waye xel yëpp dem ci lu bax xel yëpp dem ci ndax moy président conseiller consultatif bu ville de maire bu Thiès xamna ñaari casquette la yore ñu ngi ànd ak Ahmed dam jigen mi nga xamanteni euh Serigne muniru di khalifa ak mom Ahmadou Baro heure bu dee yeble ci keur Cheikh El Khadim Ahmed Dame mii rek la yebal. di sunu cër nekkul won ci dëkk ba waaye dafa dafa da jóge fenen ñew ngir and ak ñun ñu ngi and ak njabot Cheikh Omarul Fouti radhiyallahu anhu Cheikh Mouhamadul Hadi mi Cheikh Omarul Fouti radhiyallahu anhu la ah ñu ngi and ak Serigne Ahmed Sakhir Lo mu ngi di njabot di ci mboolem kilifa diine yi ñu ngi and ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xamanteni ku ko tudd sa xel yëpp lim ci Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ñu ngi ànd ak ñi sa defar di sëtub Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Modou mu Serigne Sidi mu Cheikh Mouhamadul Moustapha soxna Aminata boole ko ñun mi am ngi kon da ñëw ci këram ñu ngi ànd ak Serigne Mbaye gol bi mu Cheikh El Khadim ma sëtam di Serigne Mbaye Ndiaye mi ngi nii toog suñu bokk ci bàkkeel yi ya, nga xam ne ay Serigne daara lañu ay Serigne lañu Zakaria Tandiou Gola ma nga élage mi ngi nii toog kon dafa mel ni ñu def ñetti oto euh, mam bukkunta mi ngi ci yoon wi di ñëw kon dafay mel ni lislaam bi la soxna Aminata Touré ni nañu ñëw fekk si la ngir yow dangaa sori ci moom di xaritam lool di soppeem lool di wóllëram lool mu lay béggee nga koy bégee ba tax na euh, ñëw bii mu ñëw fii ndax bu ñu ñëwee rek moo ñëw nee na doy na sëkk yow yow mi man mën nga koo wutuwaat fii ci bis fi doy na sëkk mu wala rek wax Ahmed mii ñu ñëw doy na ndax foo toog jotaay ma waaye mun nag ñun ñëpp nañu ànd di ñëw bu njëkk fekk si nag kenn di Serigne Saliou Bousso mii nga xamante ni eh, mooy mooy Touba Toubaay moom mooy man maay moom mooy soxna Aminata ndax cause bi ñuy bokk di défendre cause bu noble la ji réew mi am jàmm diine ji jubo réew mi xëtloo nga xam ne ci këram sax la fa la ñu wàcc kon mooy njaati gi di sëriñ Cheikh Bousso mii nga xamante ni lu may def ci lislaam wala lu muy def ba ma ko waxee du ñu taxaw euh, soxna si di la jottali nuyoo président di la jottali nuyoo mboolem conseil bi xam ni mbooleem ay taxawaay yu mu am ci réew mi da bokk ci ñi ko ciy jàppale bokk ñi ko ciy xelal bokk ci ñu mu ciy bàyyi xel ba tax na mu ni nañu ñëw ànd ak yow ci bis bi ànd ak yow siyaare sa xalifa euh, ànd ak yow siyaare seen Cheikh Aziz mi nga xamante ni euh, sama wóllëree lool lu yàgg lool. bi mu yëgee ni démb maa ngi fi ñëw daa dégg lool ni ma xanaa da ngay yenn si man ko ñun kat <laughs> waaye bu ñu fa jógee ah, xam naa ni eh, ànd ak sëñ siidi ñëw siyaare xalifa fi eh, siyaare leen waaye mu ne doyutul nag suñu kàddu na ngeen ko yëkkati ci biir cérémonie fi eh, waxal ñu sëñ sëñ Cheikh li ñu fi ñu ak moom taxawaay yi mu am ci ñun ndax sëriñ siidi day man may moom ku xam si soxna Aminata ku la eh, dégg na ci eh, day wax ba càkk dañ seen siiti ndax ñun xam nañ ci dara kon nga jàpp ni délégation bi mu indi eh, yaakaar naa ni délégation ñett jàpp ñeent ndax sa mbokk Ndiassane ñu ngi ci yoon wi ñoom ñëpp mun leen dem leen ànd ak seen siit yi bis bi ngeen toog ba mu yeewu leen waaw ah, yóbbante nag lañ naan yaay buntu soxna Aminata ci kër gi kon lépp lu ñuy war a def ci màggal gi rawatina nag faf xalifa bi jox la ndigal nga coordonné màggal gi nga xam te ni tey looloo lu waay def ci màggal gi yow la ko defal lu waay taxaw ci màggal gi la ko taxaw moo tax mu ni sëñ Ahmed nii ak bokk yu ñu àndal yëpp li soxna Aminata di def ci màggal gi waaw ah, waaw ah. li soxna ministre di def ci màggal gi te xeeb ko lool te muy asaka yéeneem ni nañ ko ko tegal ci sa loxo mm. fa mu war a àgg xam ko ko ndaxte ñun ñëw nañ ngir yow ñëw nañ sa taxawaay ngir yow kon da jàpp ni soxna Aminata daal ñëw na te yaay moom mooy yow kon bu fekkente ne nee nañu jug leen nag ànd ak ñi nga war a àndal yëpp. ba rawatina sa bokk yi nga xam ne boo leen gisee di nga bëgg lool waaw mu ne diine ji bu kenn des kon da jàpp ne lislaam bi ñëw na diine ji ñëw na bokk gi ñëw na soxna Amina tam mi ngi wax it ba ñu ñëw ñetti kaay mi la ñuy def lii moo ko bis bi lii ko lii ko lii soxna Amina bi yónnee mu soxna Amina Touré nee ku baax kii daaneel kàddoom ni mu ko waxee rek barki démb rek la tàggoog moom sama xarit la. sëriñ bi nee na xaritama. te dara taxut. te dara taxut. lu dul fullaam. lu dul fullaam. ak faydaam. ak faydaam. ak ngorom. ak ngorom. ak bëggam lu baax. ak bëggam lu baax. looloo ma boole sëriñ Gass Kaltom nee na Soxna Amina Touré mi leen yabal looloo ko booleeg moom. yàlla na jàmmam yàgg. nee mi ngi ñaan yàlla na jàmmam yàgg. yàlla sàmm ko te yéen. yàlla sàmm ko. te ko ay yéenam. te yeggaleel ko ay yéenam. sunu mag yi di sunu sëriñ nag di sunu xarit. na magam ju baax ji mu dendal toog sëriñ Sidi Mouhamed moom Seydou Sidi xaritam di sunu mag di sunu lépp. nee na muy sunu mag di sunu lépp. wax nga ko da ngeen ñëw ngir wétli ko ci bis bi. wax ngeen wax ngeen ko léegi da ngeen ñëw ngir wétli ko ci bis bi. fekk na mu ko ay bokkam. fekk na ko fekk ngeen ko mu wétli ko ay bokkam. ci ay waajuram. ci ay waajuram. ak i magam. ak i magam. ak i rakkam ak i rakkam. kër gi kër gii. ji. nee jëmm ji. fekk ngeen fi ko am solo. fekk ngeen fi am solo. koo xam ne boo fi duggee. koo xam ne boo fi duggee. yoon wi ngay dajal fii tey taalibe yi ko miin. tey taalibe yi ko miin. ci bis yu mel nii. ci bis yu mel nii. bu ñëwee fii. bu ñëwee fii. te waroon na jaar ziare seenub sëriñ. te waroon na jaar ziare seenub sëriñ. du ko jar. du ko jar ndax boo fi ñëwee. ndax boo fi ñëwee. da nga fi fekk sab sëriñ. da nga fekk sab sëriñ. mbaa sab sëriñ fekk la. mbaa sab sëriñ fekk la fi. loolu nag loolu nag. jikkoo koy maye. jikkoo koy maye. ne Serigne Sidi mi ku baax la. ku ko yàlla booleel. ku ko yàlla booleel. na xam nit ku baax la yàlla booleel. ndax boo jaxasoog moom. da nga gis jikko. da gis jikko. makaarimul axlaax yi nekk ci moom. makaarimul axlaax yi daje ci moom. tax nga jàpp tax nga jàpp. waaw ñoo leen koy seere. Serigne Gallas Kaltoum nee loolu rek la doon seere. ndax nee na moom magama xaritama am nañu wolof yi naan nit da nga ko jege ba matul ci moom. nee olof dañuy wax ne nit da nga ko jege ba doo mat ci moom seede. waaye kii moom mat nañ ko ci. waaye Serigne Sidi Mohamed seen gas kaltoom nee na man na sëkk seede ci du lim bokk ak moom de. du lim bokk yow de. ay jikko waaye jikko yi. yi nga xam ne yi nga xam ne. fii de. fii de. ku nuyoo sant Mbàkke te ñëw ci kër gi. nee ku fi nuyoo sant Mbàkke te ñëw ci kër gi de. bu toogee fii ma toog. bu toogee fii mu toog. lii dong lay seere. lii dong lay seere. mooy baaxam. mooy baaxam. ak ni ko yàlla ak ni ko yàlla def. Ne ku baax la daal. nee nit ku baax la daal. macha allah macha allah jërëjëf. di nuyu sëñ Sidi. di nuyu Serigne Sidi. di ko ziare ci bis bi. nee di ko ziare ci bis bi. di ci bis bi. di ci bis bi. am nañu mbégte lool. am nañu mbégte bi ñuy choisir délégation bi. ñuy choisir délégation bi. ñu boole ñu ci. ñu boole leen ci. boole ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall. boole ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall. gi nekk Thiès. gi nekk Thiès. boole ci Cheikh Chérif Aydara. boole ci Chérif Aydara. boole ci Cheikh Ahmed Tidiane Guèye. boole ci Cheikh Ahmed Tidiane Guèye. boole itam euh, sëñ euh, Adi Thiam. nee ñi boole tamit Serigne Habib Thiam. Hadi Hadi Thiam. Serigne Hadi Thiam. di sëtti Cheikh fuuti Fouti. di sëtti Cheikh Omar Fouti Tall. ak délégation bi yëpp. ak délégation bi yëpp. ñu ñëwee itam. ne bi ñu ñëwee itam. sëñ Galas agsi. sëriñ Galas Kaltoom agsi. taaralaat jotaay bi. taaralaat jotaay bi. mu mel ni ci délégation bi la bokk. mu mel ni sëriñ Galas Kaltoom ci délégation bi la bokk. ndax ñun bu ñu jógee ñëw fekk ko fi ndax ñun bu ñu jógee ñëw fekk fi rek. fekk nañ suñu bopp. fekk nañ suñu bopp. itam ci turu soxna Mimi ture nee ñu ñëw tamit ci turu soxna Mimi Touré. waaye nag suñu bunt ca moom. waaye suñu bunt ca moom. nekk Serigne Ibrahima Faye. ne mu nekk Serigne Ibrahima fay mii jëloon kàddu gu rafet gi léegi. nga xam ni. nga xam ni. Thiès. Thiès. kuy wax xam-xam. kuy wax xam-xam. di fonk doomu soxna. di fonk doomu soxna. boo ko gisee. boo gisee jëmm ji. di nga ko xoolaat. di nga ko xoolaat. ndax taxawaayam ci dëkk ba. ndax taxawaayam ca dëkk bee di cees moo ko jox cër yu mu am. moo ko jox ceer yi mu am. ci diine ji. ci diine ji. ak ci administration. ak ci administration. ba soxna digganteem ak soxna si. ba diggam ak soxna Mimi. yegg fi mu yegg. yegg fi mu yegg. ñun bu ñu boolee ci délégation. kon nag bu ñu leen boolee ci délégation bi. ci suba la la la la la loola yegg si ci man. nee ci suba la loola ak si ci moom. mu fekk Dakar. ma ko fekk Dakar. Dakar laa jógee jubal si fii. nee Dakar la jógee jubal si fii. ndax kër Serigne Touba moom. ndax kër Serigne Touba moom. dinaa sawar ku ma fa yónni. moom nee na sawar na lool ku ko yónni ci kër maam gi di kër Serigne Touba. sama kër la ndax këram moom. Serigne Sidi mi. nee Serigne Sidi mi. yàgg na lool. yàgg na lool. mat na ñeent fukki at. mat na ñeen fukki at. bi ñu xamante. bi nu xamante. daawuñu tàggoo. te ñu tàggoo. ak maam Serigne Mbacke. ak maam sëriñ Mbacke. fii. fii yàgg na lool. ne loolu yàgg na. booba fii melul nii. ne boobu lii xewagul fii melul nii. nekk sunu xarit la. ne Serigne si doon xaritam. nekk ku baax. nekk ku baax. lii sëñ Galas seede. lii Serigne Galas Kaltoom rakkam ju baax ji seede ci moom. moo nekk ci moom. moo nekk ci moom rek. nit la ku yaatu. ne Serigne si di nit ku yaatu la. nit ku fonk kilifteef. nit ku fonk kilifteef. nit ku fonk taalibe. nit ku naw la ñëpp. nit ku naw la woo ñëpp. tabaarakallah tabaarakallah kon nag bu yàlla dogalee bés bi jot kon bu yàlla dogalee bés bii jot ba noppi jote ci moom ba noppi jote ci moom ñu jóg ñëw fi ñu jóg ñëw fi dinañ ci sawar lool danañ sawar lool daaw jéeg daaw jéeg. maa ngi koy nettali léegi ci oto bi. mi ngi koy nettali léegi bi ni ñëw ci oto bi. Serigne Ahmadou Badawi. Serigne Ahmadou Badiou. bu Serigne Fallou. bu Cheikh Amadou Fadal. moo ma woo ca waxtu tàkkusaan. moo ko woo ci jamonoy tàkkusaan. wax ma ne ma Serigne Sidi wax ko ni ko borom Touba Cheikh Sidi Moukhtar. daf laa boole ci ñi muy yóbbu ma. daf laa boole ci ñi dem Màkka ren. yóbbu ma. ne yóbbu ko. ma dem ñëw. mu dem ñëw. te kon kër gi kon kër gi yore na sama teraanga yore na teraangaam joo xam ni joo xam ni man mënu ma koo fay sëñ baara moom mënu koo fay sëñ baara waaye nag sëñ tubaa la waaye nag sëriñ tubaa la ndax sëñ sëñ Sidi Moxtaar daf ñoo waxoon ndax borom tubaa Cheikh Sidi Moxtaar daf leen waxoon ni leen bam ñuy yebal ñuy dem bam leen di yebal ñuy dem Màkka yéen ñii di dem ni yéen ñii di dem man yóbbuuma leen man yóbbuuma leen sëñ tubaa moo leen moo leen di yóbbu te na ngeen xam ne sëñ Touba moo leen di yóbbu. sëriñ bi ni leen na ngeen xam ne sëriñ Touba leen di yóbbu. kon nag kon nag. bu teraangay dikkee nii. bu teraangay dikkee nii. bis bi am. bis bi am. ñu yebal ñu ñu ñëw fi ñu yebal leen ñu ñëw fi xam nañ fi ñu yebal xam nañ fi leen yebal waaye sëñ Sidi waaye sëriñ Sidi ñu ngi lay ñaanal yàlla nee noo ngi lay ñaanal yàlla sa toogaay bi sa toogaay bi yàlla na ko yàlla gën a dëgëral yàlla na ko yàlla gën a dëgëral yàlla na yàlla gën laa jàppale yàlla na yàlla gën laa jàppale yàlla na yàlla gën laa taxaw yàlla na yàlla gën laa taxaw dama doon sof sama kaddu nee daf doon sof kaddoom rek ci kaddu sëñ Ibrahima ci kaddu sëñ Ibrahima ndax yoon wi dafa fullawu lool ndax yoon yi dafa fullawu lool ndax délégation bi soxna si tànn ndax délégation bi nga xam ne moom la soxna si tànn ba noppi jiital jiital ko ci ba noppi jiital ko ci day dal xelu ku mel ni man day dal xelu ku mel ni moom mu bokk ca mbooloo mu bokk ca mbooloo moom defee kon loolu mooy sama kàddu ne loolu rek la fi doon seere sëriñ daam nee na loolooy kàddoom doon ko seede doon ko seede rawatina nag rawatina nag bi sëriñ galas duggsee bi sëriñ galas kaltoon duggsee toog ci wetam toog ci wetam dafa gën a taaral dafa gën a taaral jataay bi ndax ku baax la ndax ku baax la sëriñ galas kaltoom ku yaatu la ku yaatal la ku yaatal la ku ku fonk doomu aadama fonk doomu aadama la mënoon naa bañ a jël kàddu ne mënoon naa bañ a jël kàddu ndax sëriñ Ibrahima. ndax sëriñ Ibrahima. war na mën a demaaleel géew. nee na mën nga koo demaaleel géew. sëriñ Fallou mii. sëriñ Fallou Galas mii. man na maa demal demal géew. mën na koo demal géew. sëñ daam jigéen mi. sëñ daam mujjee kàddu yu rafet yi. moom li mu wax. nee moom li mu wax. lu dëggu la. lu dëggu la. ndax ba muy ñëw fii ci kër gi. ndax ba muy ñëw fii ci kër gi. yaakaar naa boobu benn néeg moo fi yaakaar naa boobu benn néeg moo fi nekkoon. ci garab gii la daan naan café. suñ ko yónnee ci délégation. boobu kooku buñ ko yónnee waate ci délégation tey. su ma waxul war na maa mën a waxal. su waxul mën na ko bàyyi kàddu mu waxal ko. kon ñoom ñoo leen di dalal. kon ñoom ñoo leen di dalal. bu Ibrahima. noo ngi yëkkati nuyoo bu sell. di la ko teg sa loxo. nga togal ñu ko ci njabootu rasulaay gi nga àndal bu nee njabootu rasulullaay nag kër yu diine yi dugg nañ mboolem jullit yëpp dugg nañ du jar muy lim kenn naan kee kii kenn fu mu bàyyi ko ndax kenn ku ne jàpp naa ne maay man ne jàpp na jàpp na ni yaay moom jàpp naa ne man mooy moom man mooy yow mooy moom mooy yow yow di yaay moom ne borom Tuubaa Cheikh Sidi Moxtaar ni mu ko daan ñaane rek moom ngeen ñëwee ci dafa mel ni loolu ngeen ñëwee seeree ko ni ci bis bi. te dafa mel ni jógewu leen ci diine bi ngeen di ñëw. te dafa mel ni jógewu leen ci diine bi ngeen di ñëw. ci administration ngeen jóge bi ngeen di ñëw. kon mel na ni. administration. administration. ñi ngi commencé xam. ñu ngi commencé xam. gëdd diine. gëdd diine. ndax am réew. ndax am réew. mënta dox. mënta dox. diine des ginnaaw. diine des ginnaaw. kon nag soxna Aminata Touré. kon nag soxna Aminata Touré. bu ngeen demee ngeen ni ko. bu ngeen demee ngeen ni ko. sunu xel dal na ci. xel dal na ci moom. ci lii yéen ñii mu yónni. ci yéen ñii mu yónni. ndax bu yemoon ci yéen. ndax bu yemoon ci yéen rek. nii damaa bëgg ngeen santal ma Serigne Sidi. nii damaa bëgg ngeen santal ma Serigne Sidi. ku mu sant ci yéen rek. ku mu sant ci yéen rek. mel na ni moom la sant. kóllëre googu muy wax. kóllëre googu muy wax. suñu diggante. moom de man dama xaw a yaafu sax. nee na moom day boo dee xool dafa xaw a yaafu sax. waaye ni mu ma jàppe waaye ni ko soxna si jàppe man man tuuti mënu koo fay. nee na moom mënu koo fay. ndax bu yónni woon kenn. nee bu soxna Mimi Touré yónni woon kenn. mu doy sëkk mu doy sëkk. bu yónni woon conseil technique am bu yónni woon conseil technique am bii toog. mu doy mu doy. ndax nit xam nañ ni. ndax ne xam nañ ni. conseil technique. conseil technique. ci li gën a jege doomu aadama la. ci li gën a doomu aadama la ba. képp koo xam ne nii. képp koo xam ne. yaay xelal nit. yaay xelal nit. balaa def dara gisee yow. balaa def dara gisee yow. buy tëdd yow lay mujjee gisantel. buy tëdd yow lay mujjee gisantel. buy yeewu yow lay njëkk gisantel. buy yeewu yow lay njëkk gisantel. kooku sor na ci nit. kooku sor na ci nit. kon Serigne Ahmed boo kon Serigne Ahmed nee na boo demee. nga ni Serigne bi. nga ni Soxna Aminata. nga ni Soxna Aminata. sunu xel dal na ci moom. sunu xel dal na ci moom. ndax comme que première sortem ndax premier ndax comme que premier sortem waa kër si waa kër yonent bi la yoni. waa kër yonent bi la yónni umma islam muy umma islam ci Touba gii ci Touba gii kon xel yëpp dal na ci moom man nanoo am ci moom yaakaar ba li nga xam ne président dénk ba li nga xam ne président dénk na ko mu am ci ndam mu am ci ndam yàlla na ci def yàlla na ci def lu ci kenn mës def lu ci kenn mës def ba am ci ngërëmal président ba am ci ngërëmal président sénégalais yëpp it mën a gis mën gis liggéeyam liggéeyam mu jëriñ waa askan mu jëriñ njëriñ askan wi. di santit di Serigne Saliou Boussa Serigne Saliou moom sax moom moo waroon a waxal day. nee Serigne Saliou Bousso moom sax mënoon naa jël kàddu waxal ko. ndax sama rakk ji nga xam ni. ndax rakkab ji nga xam ni. muy sëñ Abdourahmane. muy sëñ Abdourahmane. bu fi nekkoon tey jii. moo leen di tontu. moo leen di tontu. te moog te moog sëñ Saliou Bousso mii. du ñu ñaari nit. kenn lañ kenn nit rek lañ. kon Saliou. kon sëñ Saliou. gan ñaa ngi nii. gan ñaa ngi nii. say gan lañ. say gan lañ. da ngay ànd ak ñoom. da ngay ànd ak ñoom. ngeen dugg fii. ngeen dugg fii. nga teralal ko leen. bu fa dara manqué rek. bu fa dara manqué rek. ci yow lay doon <laughs> <laughs> ndax sa kër nga ñëw. ñoo ngi sant ñëpp. nee ñu ngi sant ñëpp. di ñaanal waa délégation bi. darajey bis bi ñu ci darajey bis bii ñu ne. ñoo xam ñoo xam. ku fi indaale tawat. ku fi indaale tawat. wala jàngoro. wala jàngoro. yal na ko suñu borom saafara. yal na ko suñu borom saafara. ci darajey xaadim rasul. ne war nañ cee mën a am yaakaar. ndax nit buy sàkku dara. ndax bu nit di sàkku dara. fekk fa sëtub sëriñ baara. fekk fa sëtub fallu. sa xel war naa dal. asaar nag. amut amut ndax li sëñ waxee digganteem ak Aminata. ndax li sëriñ Fallou Gallas Kaltoum mi seere ci digganteem ak Aminata Tall. bu ñëw loon dama. ak Aminata eh, ki Mimi Touré. waaw ah, bu ñëw madame la ministre Mimi Touré. bu ñëwoon bu ñëwoon. bu ñëwuloon bu ñëwuloon. du ma xam ni mu demee moom. du xam ni mu ñoom ñaar. moom xam ni ma demee moom. kam moom it du xam ni mu demee ak moom. kon di wax. l'ami d'un ami est un ami. loolu xam naa. dégg nga waaw. kon nag maanaam. nee na li tubaab di wax xarit. nit ku ne. nit ku ne. xaritam. xaritam. xaritu mu kàcce la war a doon. xaritu kàcce la war a doon. kon loolu. moo ñu dal ci mag. moo ñu dal ci Sénégal diggam ak Sénégal kaltoom. xam naa nag it jotaay bi ñu leen tee. nee jotaay bi ñu leen tee. yaa daa yàgg na egg leen tee ba noppi. yàgg na kon nee nañu baale ñu naan bu fee. bu demee ci baax ba. wala nga dem ci baax ñu dem ci magam ci baax. وآله وصحبه وسلم ومنطقي سدد وقلبي علمي يلا يا لطيف صلي أبدا على الذي بك اهتدى وأبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمي يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من أبد سيدنا محمد والآل وصب بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني عن آتي بك وصمت عن أذن بآتي صلي بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وآله وصحبه ñuy toog ci kaw di yaay Ndioba mi ak Mame Siré mi ni sa nijaay ak sa ndey fottuwaat fa kàlla pour ma sa jëm ngay dom mat na dom set kon su yo amé bisu toll ni di magal sa baay nu ñëw fotuwaar ba kala and sa kër ndey ñew di la siasi jël nak kaddu gi bayiko ci ci ci Fat job mi mu yëkëti kaddu ndax xamna dafa xat ci yow ci ñom itam itti na ci ñom Fat job bismillah kaddu gaak noonu. sire ak Fatou Abakala ak yaay Ndiob nee ñoo di la siar du ñaanal gudd. nee di lay ñaana fan gudd. nee sëriñ Sidi Mbacke di sakku ci ñaan. noo bokk lépp. nee balay sa ñoo bokk lépp. ñoo bokk sëñ Abdou Aziz. ñoo ñoo bokk nag El Hadj Siré Jooja. ñoo Paate. waaw moo fii tey. nee moo nu fii tey. nee Serigne Sidi Mbacke ñu ngi lay sagoo yal na yàlla bàyyi suñu kanam. di sant bu wér. nee di la sant bu wér. nee suñu kàddu jaru mi gudd. ndax yow danoo bokk yow bis bi. sa commune ñëw suñu gan la. Mbàkke sa xam ne yow bis bi na ci yow moo tax dañuy tagg suñu kàddu rek ñoom ñëpp ci ndigalal maam Siré ak ma ak sama yaay Njóoba jël kàddu jox ko Fatou Diop mii ne di la sant di la fan gudd ak yàgg ci wér yàlla yàlla guddee sa fan. nee na nuyoo bi lu mu gàtt gàtt. du ñàkk ñu feeñal suñu mbégte. nee na du ñàkk daal ñu feeñal mbégte. daal tax ñuy feeñal mbégte. na kàddu yi li tax ñuy feeñal mbégte mi. su sama mbokk yi sant mbàkke rek ne dama baax. nee na mbokkam yi sant mbàkke rek bu ñu nee dafa baax. te ñi bokkal ndey ne te ñi bokkal ndey nee nañ baaxul. baax googu nee na baax googu kon du doon dëgg. kon nag bu sama waa kër na kon bu kër waa ndey waa kër ndeyam ñëwee. muy waa kër maam Siré. muy lu mu xat-xat. nee lu mu xat-xat. dinaa leen na leen sant. gërëm leen gërëm leen. ndax kat. ndax kat. mbàkke mbàkke boo gis. mbàkke mbàkke boo gis. dëgg la am na kër baay. dëgg la am na kër baay. waaye ci néegum ndeyam lay seexal. waaye ci néegum ndeyam nag ci lañ koy seexale. ndax maam maam Siré ba muy dund. nee na maam Siré ba muy dund. sëriñ Abdou Aziz mii. sëriñ Abdou Aziz nga xam ne moom la ñuy fàttali ko tey. nga xam ne moom la ñuy da koo jàppee woon nijaayam. da koo jàppee woon nijaayam. sëriñ bi jàppee ko maam Siré jàppee ko sëriñam. maam ko sëriñam. jàppee ko ab ko itam ab jarbaatam. lépp loo xam ne nii. nee na lépp loo xam ne rek. nijaay daan na ko jàpp jàppale. nijaay daana ko jàppale jarbaatam. ab jarbaatam. nee na daana ko def ci seen diggante ba mat sëkk. nee na lu nday doon jàppale doom. doon na ko def ba mat sëkk. doon na ko def ba mat sëkk. kon nag maam Siré kenn la woon rek. kon maam Siré kenn la woon. waaye yéen bu ngeen dee mbooloo mi waaye bu ngeen dee mbooloo mii. di doxalaat. di doxalaat. li nga xam ne maam Siré doon na ko def ci sëñ. li nga xam ne maam Siré doon na ko def ci sëñ Abdou. nee na mënu lu dul sant leen. ñaanal leen. ñaanal leen. ñaanal sunu waajur yi nga xam ñaanal sunu waajur yi nga xam ni. mag ak tawat rek. mag ak tawat rek moo ñu naqari ci ñoom. moo leen tee ñëw moo leen tee ñëw. dégg waaw tawat moo leen tee ñëw. nee na tawat rek moo leen tee ñëw. mën nañ cee tudd yaay jaw. nee na mën nañ cee tudd yaay jaw. tudd ci soxna maam Khoudia. tudd ci soxna maam Khoudia. ñuy ñaan yàlla ak Serigne Touba. ñuy ñaan yàlla ak Serigne Touba. may leen tan. yàlla may leen tan. ak wér. ak wér. ba ñu àndaat ak yéen ci tey. ba ñu àndaat ak yéen ci tey. di sant soxna Ndiobaloo mee nga xam ni. di sont soxna Ndiobaloo mee nga xam ni. bu toogee rek. bu toogee rek. ñoom ñëpp toog nañ. ñoom ñëpp toog nañu li tax ma jiital jigéen ñi nag. nee na li tax mu jiital jigéen ñi nag. néeg bi jigéen da cee mag. nee na néeg bi jigéen da cee mag. te ku jigéen baaxul. te nu jigéen baaxul. gisoo soxna maam jaara gisoo soxna maam jaara soxna Aïcha. gisoo si soxna Aïcha. loolu moo tax ñu njëkk jigéen ñi. nee na loolu moo tax ñu njëkk jigéen ñi. sunu paree nag soog ciy teg. nee na bu nu noppee nag doog cee teg. sunu nijaay yi sunu nijaay yi. kon ci Serigne Siré mee toog. na ci kon sëñ moo moomu toog. la ñuy yëkkati nuyoo bi jox ko. la ñuy yëkkati nuyoo bi jox ko. jàllale ko ci ñoom Serigne. mu jàllale ko ci ñoom Serigne. ba ci Baye Daam mi gën a tuuti. ba ci Baye Daam mi gën a tuuti. xam naa sëñ Modou Baara nga ne di ñëw sax. nee na sëñ Modou Baara mi ngi noonu di ñëw. waaye fekk na wax ji jeex. waaye mi ngi fekk wax ji di jeex. waaye lëmaale na ñoom seenug cant. waaye lëmaale na seenug cant. ak seen ngërëm. ak seen ngërëm. ndax samay nijaay lañu. ndax nee na ay nijaayam lañu. mënoon nañ bi ñu ñëwee. mënoon nañ bi ñu ñëwee duñu wane ak taalibe. duñu wane ak taalibe. jàppe ma doom. jàppe ko doom. waaye mosuma toog ci kaw. waaye nee na mosut a toog ci kaw. ba nu jéem a toogandoog man. ba nu jéem a toogandoog moom. siré mee ko fa def. nee na siré mee ko fa def. defu ko ngir ñàkkug taalibe wala euh, jur gum ma jur de. nee na defu ko ngir ñàkkug taalibe euh, defu ko ngir jur gum ko jur. da koo wér wér wéradi moo tax mu def ko. nee na wéradi moo tax mu def ko. mën nañ koo jéggal bis bi. mën nañ koo jéggal bis bi. waaye xër gu mu xër ci Serigne Touba. waaye xër gu mu ci Serigne Touba. bëgg gu mu ak bëgg bëgg Serigne Touba. moo tax ba naga du toog. moo tax ba naga ni du toog. ndax moom damaa yàgg jàppal boppam nag. ndax moom daf koo yàgg a jàppal boppam. ba sama yitte di toll ci ñaar fukk. nee na ba di toll ci ñaar fukk. booba ma daan may ñaar fukk. booba ko daan may ñaar fukk. te ñaar nee ñaar fukk yoyé nak soxla sumay fajj ci xaalis numu toll. soxla sumay fajj ci xaalis numu toll. ñaar fukk yoyé daan nako fajj ñaar fukk yoyé daan fajj ko yemal won ak sama yaay ne la ko yemalewul won ci yaayam. yemalewul won sama yemal yemalewul won yaayam. sama yaay ak dara. ak dara nak kon nak ñu lay ñaanal. kon lay ñaanal. nga am ak wër nga am ak wër yeen jigeen ñi nga xamni ni nii. yeen jigeen yéen ñi ngeen xamni yeen ngi ci seen neegi sey yeen ngi ci seen neegi sey ñu ngi leen di denk ñu ngi leen di denk bu ngeen ngeen gëna gor gor bu ngeen ngeen gor bu leen yemale seen borom kër ak dara. leen seen borom kër ak dara. ndax nit. ndax nit. rawatina jigéen. rawatina jigéen. ci dégg rek. ci dégg rek. la mën a jariñoo. la mën a jariñoo. ci ñàkk dégg ndigal. ci ñàkk a ci mën a loroo. ci lay mën a loroo. loolu lépp loolu lépp nag. danañ ci joxe ñaari misaal. danañ ci joxe ñaari misaal. benn bi. benn bi. iblis la ñuy jël. nee na ci iblis lañ koy jël. ndax ku amoon ngërëmal sunu borom la. ndax ku amoon ngërëmal sunu borom la. ci jenn yitte rek. waaye ci jenn yitte rek. muy yonent bi bi mu feeñee. muy bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam feeñee. mu jox ko ndigal. mu jox ko ndigal. ngir mu sujjootal yonent bi. ngir mu sujjootal yonent bi. mu lànk bañ koo sujjootal. mu lànk bañ a sujjootal yonent bi. ni ko da koo bind ci ndox ak ban. mu ni ko dañ koo bind ci ndox ak ban. te moom mu bind ko ci leer. moom mu bind ko ci leer. moo tax du sujjootal yonent bi. nee na wutal yonent bi. bali dal iblis. bali ko. ñëpp gis nañu ko. Euh, moo loolu mooy wane ñàkk kilifa li muy jëriñ. loolu mooy li muy jëriñ. wéy ndigalit. li muy jëriñ. li muy jëriñ. suñu jëlee maam Cheikh Ibrahima Fall. bu ñu jëlee ci maam Cheikh Ibrahima Fall. mën nañ cee jël exemple. mën nañ cee jël exemple. ndax du doomi sëriñ bi. ndax du doomi sëriñ bi. du rakki sëriñ bi. du rakki sëriñ du magi sëriñ bi. du magi sëriñ bi. la. taalibeb sëriñ bi bu nangu a a wéyee ndigal sëriñ bi. bu taxna fuñ fu señ bi rek. dañ nan señ Tuubaa ak Cheikh Rafal. dañ naan sëriñ Tuubaa ak Cheikh Rafal. kon nag lu ngeen man ci ndigal. kon lu ngeen mën ci ndigal. na ngeen ci na ngeen na ngeen ci wey ta xamni seen borom kër yi. te seen borom kër yi. yor seen aljana ñoy yor seen aljana lu ngeen baax baax ci seen biir bok lu ngeen di baax baax ci seen biir bok te amu len seen ngërëmal euh, sëriñ it. te amu len seen ngërëmal sëriñ it. seen ngërëm dana dess seen ngërëm dana dess waaye yalla na mi nga xamni ni. yalla mi nga xamni lu mu jubal mu jub. lu mu jubal mu jub. yalla na len jubal ak seen borom kër. ci darajee xaadim rasul xam naa bis ni ki tey nag nee na xam na ni bis na ko nag ñu commencé waajalaat ñu commencé waal waajalaat màggalu Kébémer gi màggalu Kébémer gi ndax daaw bi bis bi jàllee ndax daaw bi bis bi jàllee lañ ko commencé woon waajal lañ ko commencé woon waajal xam naa yaakaaroon ngeen ni nee na xam na ni yaakaaroon ngeen ni dama da koo fàtte waaye dama doon xaar waaye nee da doon xaar ci niñ ko tàmbalee woon ci bis bi ci niñ ko tàmbalee woon ci bis bi yàlla defal leen ci tawfeex yàlla defal leen ci tawfeex commencé bi ñu commencé waat ko ci bis bi ndax mo am tawfiq ndax mo am tawféex ndax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di sant Sun mbokk yi fekk di sant suñ mbokk yi fi fekk sëñ baskadior mom tok nga xamni ne seen waajur la te fi lay yend ci suba ba eh, ne di sant sëñ cekkeen mi di sant mi tok nga xam ne cene ba la joge nga xam ne cene ba la joge ci waa cene ba la bokk ci waa cene ba sekk la bokk nee na na ko sëñ Sidi Muxtaar daan waxe bëggul ñu naan ki murit la bëggul ñu naan kii xaadir la bëggul ñu naan kii xaadir la. ñu naan kii ndax ñun ñëpp. ñoo bokk genn kurus gi ñoo bokk genn kurus gi. ñoo bokk waxtu yi ni ñu koy jullee. ñoo bokk it waxtu yi ni ñu koy jullee. ñoo ñoo bokk di euh, ponk lislaam ñoo bokk it ponk lislaam yi. kon nag ñu ngi sant ñëpp. kon nee na ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di leen wax ni ba déwén ak jàmm. yàlla bu kenn manqué. nee na at mii ñu dugg. bu naree naqari. yàlla na dàq daaw. ci darajay Sëriñ Ahmad Ahmadou Bamba Khadim Rasoul